Seex Mustafa santal dayab cant yaa fi gën amul ku lay te ka ngaayoo ci Mustafa fi gën amul ku lay werante te ka ngaayoo ci nelaw yaa Mustafa ñépp mokk nañ amul kenn ku lay xiiraati luum nan ci mustawa te dal nang nelaw yaa mustawa ñépp mokk nañ amul kenn ku lay xiiraati luum nan ci mustawa wala yaara yu may yaay borom xaas ni mustawa muhammadu abdalahi ax nii bi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 te bul faale ko wuy see ka farje ki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat ni wiiw ne yaa wat ña daawaate Moustapha ñi ngay woo nee nañu waaw waaw nda Cheikh Bamba yaay donoom ku koy sikki sa kaareere Cheikh Amdi Moustapha ci waaw mbaa ci waawaaw mbaa ci woowoo nga tollu tey ku ñëw rek ku jëkki jooy ndeyaa doon Mustafa wolof nee na woote bi yàlla moo gën bu nit di def defoo kenn deful yàllaay borom kun fa mustawa wolof nee na am xel nangu dem téléphone nelaw ku am xel na ànd ak dem wuy ji mustawa la Seex Bamba noon waa réew mi yàlla ma ku dib dof na tuug ni xel wa dew fekk mustawa sëriñ Bamba tuubal nan la ñëw nan bi jaayikum bokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki talibe yi noo ngi leen di nuyu te di leen ziare ñu jiital ci nuyoo bi ak ziar bi kilifa ak yoon wi Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ñaan suñu borom dolli ko sàmm dolli ko aar wala mu yéene la gil suñ Tuubaa suñu borom def ci lu kawi jotal di ziare bu baax Sëriñ Ahmadul Muxtar bi nekk ci bopp njabootu Cheikh Mouhamadul Moustapha di ñaanal mboolem jullit ñëpp yërmaande suñu borom ak njëgalam barkeb sëñ Tuubaa noo ngi fii tey ci biir jumaa ji ci bis bi nga xamante ne ni mooy fukki fan ak juróom-ñeent ci muharram jëm nag ci guddik ñaar fukki fan ci muharram di guddi gi nga xamante ne ni moom la Seexul Xadim fanaansee ci pàkkam bu tedd bi nga xamante ne ni moo ko gënal ci pàkki suuf yi fu mu sa yendu maamu fanaan fa fanaan fee ko gënal keroog bi loolu ma nee ne eh, xam ni suñ borom ñëw na akub coobareem Cheikh Mouhamadul Moustapha andi ko ci barab bii guddi googu yi la Cheikh Moustapha wax ni képp ko fi fanaan suñ borom jéggal la say bàkkaar guddi goog yi la wax ni yitte ju jar bañ a fanaan si Tuubaa guddi ashrina suñ borom sàkku ko guddi googu yi la wax ni ku yor yaari mbubb na la jaral jaay menn ma loolu nag Sëñ Tuubaa lañ koy defal kon du du bisub kenn bisu Sëñ Tuubaa la ñu jàpp ni fukk taalibe nekk te Sëñ jaral la dara war na laa jaral jéggi ay jéego jëm si ci barab bi ndax keroog boobee suñ borom ñëwee akub dogalam foofee ci boqaatul mubaaraka ña ko doon gunge nga xam ni bët mënu leen a gis ñooñee sunu saa nee na yu bis bi dee see fii la fanaan ak moom sëñ Moodu moo ko wooteel bis bi bis bi nag bi mu ko wootee dano dana da coo jëfal boppam jëf joojee mu fi bàyyi woon nag moom lañuy sàmm ba léegi te mooy njàngum alxuraan njàngum xasida istixfar salaatu ala nabi njàngum alxuraan mi itam ni mu ko organisé woon mooy ci biir barab bi ñeent kaa ngi mokkal alxuraan kenn ku ne tàmbali ab kaamil ba xatma ko fukk ñaar ci mihrab bi kenn ku ne tàmbali kaamil ba xatma ko fukk ñaar ci biir jumaa ji kenn ku ne tàmbali kaamil ba xatma ko muy ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett koñ yu jumaa ji koñ bu ci nekk jas bu benn ko koñ ba ci des muwaahibu ba ci des mu xaddimaat ba ci des miimiya ñeneen ñi mënul lool nag nekk ci salaatu ala nabi ak istixfaar boroom xam-xam yi laa biire ñu xamut borom alal yi dimbali ñu néew ji loole ñu togg aw ñoom jox ko jaami yàlla yi loolu yi la wagoon ko fanaane mu sa tee mu bind ab discours fàttali nit ñi jaamu yàlla xiirtal leen ci soññi leen ci fàttali leen itam sëñ Tuubaa mii ñu dawoon wut si ko lu mu nu doon doyee fàttali leen itam naal yi fi sëñ bi bàyyi te ñu war ko def loolee nag njaboot kii fi nekk itam ci njiital sëñ Ahmadul Muxtar loola rek lañ fas yéene teg suñ tànk te duñ ci jóg du nu fekki jamono jamono moo ni fekk si ci melokaan woowu yi nga xamante ne ni noonu la ñuy màggalale sëñ Tuubaa ci taxawaayub Cheikh Mouhamadul Moustapha loolu nu ngi koy fàttali népp fii ci jumaa ji daal lañ koy def lépp lu waaye mën ci jàng alxuraan ba guddee itam ci penkub jumaa ji fa mbooloo mi fanaan ci jàng alxuraan jàng xasida faneen fu ko waay mën a defee nag ak noo ko mën a jekkoo te mu dëppoo ak sunna nga xam ni bu ca borom bettoon doo ca am looy soppi ba tey noonu baax na waaye daal foowu nu foowlu woon woote wuñu am po itam ñu bëgg daal ñu xam ne li ñuy def moom Sëñ Tuubaa lañ koy defal yàlla rek lañ koy seeral nag te suñu borom am na fay noo ngi ci woo ñëpp bàyyiwuñ kenn ndax Sëñ Moussa nee na ju jar fanaan si guddi gi suñu borom sakku nit nag mën naa am lu ko gënal wala mu umpale guddi gi mbaa mu jàpp ni yoonam néewu ci ndax daaru xudus lañ koy defee te moom bokku fi daaru xudus amul kër sëñ Tuubaa moom waaw kër sëñ Tuubaa rek moom daaru xudus sëñ Tuubaa la faneen kër guñ fi waxit sëñ Tuubaa rek fa ne foo fi génn sëñ Tuubaa dara du fa des asalaamaaleykum wa rahmatullah ndax ganaar ak nenam yaag siqiya cuuja kulluhum borom gàmb baa moom lépp naaw tal num Moustapha Cheikh Moustapha mi maay mujjisaatam fardi lamiñ wa koy waxal wa kallama rabbul harsi musa bi mustafa lu jin njaaga bambay njaag te mooy njiin fa mustafa ku fay nag jikkoom war naa liggéeyal si mustafa cheikh mustafa gee jum waaju ak si duy ku mar bay xondo